assalamualaikum mari mal konton ndole na kay tan dalla ko hiv sa samu sa samu ndi sa salu mi yalon ka be sotoron ne mol mi yalon ko be suul kono man son tan lotan ko tele bala la jumbe fo sa be balo kono fo sa sa te kono salo ndole ka mol hadama dimol yamar hiv la ko wala pour si finti si fanjar anu codiro ani fatan fanso miliyalan ye a lon ko a bee lan sa a lon ko sasalum kuraŋo lom alla le ye a layi kam ndun alla naŋ kita miŋo miŋ na feere ti je to i si faanoo le i maŋ kuraŋ ka faale i maŋ ñiŋ kuraŋo soto to mbe si ñiŋ dankeneya soto ko sa sasa doroŋ sa niŋ alla ye a layi ka i sa ta ko alala ya ye kam wo kana tinna ye bori mo nyola wo kana tinna ye, ye, ye fatan fanso dundi i naa tema yayi a yitanda ko itana naa maŋ ke hadamadiŋ kiliŋo to sa tara alala ya ye a beeda mbe ñine fola hadamadolo ko millialon ko e man son fintileɓe suwol kono e man son fintile kane laylol tes sina lopitanol to ye laylol e jiiɓe foye si ñin sasa isa e long huna mu ñin sasa ɗe ko ñin sasa toñalem aɓe kerin ne wole mum nakkumoti wassalam seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci programme bi mu di suñu daara ji muy programme bi nga xam ne nag eh, jamono gu ci nekk dinañ koy indi di ci waxtaanee ay bunte yu ci bari yoo xam ne dinañ ñuy jàngal ci suñu wàlli diina islaam eh, fi mu nekk nag bés bu ay ba léegi gisoon ngeen amoon na lu ñu junjoon ñu tàmbali ko ak Alhaji Ousmane Dia Euh, jamono ji nag dafa dem tukki dem Amérique euh, ñu fas yéene ko euh, jekkali nag ak ki nga xam ne moo di kaadi Omar Seck ñu ngi ko nuyu bu baax a baax moom Alaaji Ousmane kaadi Omar nga nuyu bokk yi. alhamdulilah auzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbi man wala mbokki julli yi yi baaxoo di seetaan programme daara ji te suñu jigéen bu baax di ko jiite Adja Aïda Diop ñu ngi nuyu mbokki déglukat yi ak mbokki seetaankat yi fu ñu munta nekk ci biir réew ak bitim réew di leen ndokkeel di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Ayda waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, Omar tey nag li nga xam ne moom lañ eh, bëgg a waxtaanee rek moo di eh, mbiri sëy dañ bëggoon a xam nag ñu nga waxal ñu suñ ñi sëy njëkka sax lan moo di sëy alhamdulilah Aja Ayda euh, loolu laajte bu gàtt la waaye bu xóot la bu yaatu mm-hmm. ndax sëy benn la ci bànqaas yi nga xam ne wala pilas yi nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala samp na ko ngir namm doomu aadama yi di ci jaar di juddu di bari di sax ci kaw suuf di ko jaamu li gën a foor ci li yàlla bind muy nit ci ni ñu ko waxee wala xat karam na bani aadam maa jël teraanga jox bani aadam ci suuf ci jéeri ji ak fu kon li gën a fort ci yàlla bind mooy nit nit nag bunt bi mën a juddoo yokkoo sax fii da du fi jeex te fekk nitam fii dafa am lu ko war te mooy jaamu yàlla moo tax yàlla bind nit yàlla nag def sëy nag muy bunt bi nga xam ne mooy benn buntu bi nit da mën a jaaree di yokk di am ci kaw suuf kon buñ doon wax lan mooy sëy ajaayda dañu wax ne mooy daganal diggante ñaar yoo xam ne dagan na ñooy ànd muy góor ak jigéen ci baat yoo xam ne ak condition yoo xam ne yuñ xam la ci charia yuñ nangutoo moo tax buñ doon wax ne kan lan mooy sëy boroom xam-xam dañoo ne aqdun bayna zawjayni yubiixu tamattu ahadihima bil aqar maanaam takkalante ñaari way dencante góor ak jigéen ci anam goo xam ne dana daganal ñoom ñaar kenn ku nekk mën a am raayiti accès ci bànneexu ci moromam ci anam gi nga xam ne yàlla daganal na ko loolu mooy sëy hmm. su ko defee nag sëy boobu nag dafa am ñoo xam ne ñoo mën a sëy am ñoo xam ne mënuñu sëy hmm. sëy aj ay lislaam góor ak jigéen rek ñoo koy def góor ak jigéen rek góor ak góor duñ sëy mhm. dafa xaraam mhm. jigéen ak jigéen duñ sëy dafa xaraam xatta mhm. góor ak jigéen ñi war a sëy sax du góor ak jigéen ñi yëpp a mën a sëy daf ci am ñoo xam ne sax pour ñu sëy dafa xaraam loolu moo tax buñ demee doon jàngat ñi xaraama sëy ci gàttal yàlla daf ñu ko tënkal ci benn aaya ci suurtu nisa neex xurima aleykum ummahatukum wa banatukum wa axwatukum wa amatukum wa xalaatukum ba aaya ba jeex mu ne xaraamal nañ ci yéen ci ba ngeen koy def ngeen def ko seeni way jur yu jigéen kon ndey du sëy doom doomam dafa xaraam ci sharia doom ak baayam doom bu jigéen ak bayam duñ sëy góor ak jigéenam wala jigéen ak càmmiñam direct càmmeñ nag la ñu wax fii toujours ñu ngi wax direct bi. Hmm. direct bi la ñuy njëkk a wax la ñuy njëkkee soog teg ñi nga xam ne nag indirect lañ mu soog a jeex. direct maanaam ndey bi ko jur direct. Hmm. doom ji nga jur direct. baay ji baay ji jur direct. Hmm. ñooñu ñoo xaraam. bi mu xaraamalee baay ji ah, doom ji jigéen ji xaraamal ki nga xam ne tantaam la mooy ki bokk ak yaayam. ndey ak baay. mbaa ndey kese mbaa baay kese direct boobu ñu bokk ak yaayam direct boobu. Mhm. jigéen ñu xaraam nañ ci góor ñi nga bokkal direct ak ñi bokk sa wayjur direct. Ah. ñu dañu xaraam. Ah. Euh, bunt bu yaatu la. Mhm. xëy taxut ñoo jóg. Mhm. waaye maa ko doon undi di ci joxe misaal ne sëy dafa limité wu dafa am ñun ñum dagan. waaw maam daganul góor ak góor daganul jigéen ak jigéen daganul yenn góor ak jigéen sax. te góor ak jigéen rek lay am. kon bu sëy melee noonu nag aj ayda foog naa ne ci programme bi weesu woon. Alaaji Ousmane yéen na ko yàlla yokk faydu ak fa mu nekkee na fa yàlla defal tawfiq. pour naa ne waxtaan nañ ci yow si lëf. ñi nga xam ne ak fi sëy déparé ci jamono yonent yàlla Adama ne ñi ne bokkoon na ci sharia moo ne ay doomam. ñoo leen sëy ñëw mu neen foofu la sëyante déparé moo ko daganal ñuy sëyante ba tey jii ba dina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw ñoom rek a fi nekkoon. ñoom rek a fi nekkoon. te ñoo war a euh, meññat doomu aadama yi war a ñëw seen gannaaw. Mm-hmm. yi nga xam ne boole mission bu yàlla bu nga santaane ci ñoom la war a fàqee ko kon say moo tax seen say demee woon noonu. Mm-hmm. ji yeneen diine yi passé woon sax ci charia da gis ne ñaar ñu bokk nday ak baay day jigéen daan nañ bokk benn jëkkër. Mm. daganoon na. Mm. buñ koy jàng ci. xisaab bint yàlla yaqub ba muy uti jabar jabaram njëkk ja layaa la bëggoon ja mooy domini domini jaayam ba mu demee kooku layaa dafa am rakk moom rakk ji moo ko gënal mu tànnoon sëy rakk ji waaye ñoom seen charia du njëkk a may rakk mag jëkkër hmm. ba léegi am na sax ci xayri yi ñu koy def aada waaw ba ba mu demee nijaayam dikkoon na ko may ci ni ko xiste yi nettale may ko mag ja mu ne ko du kii de laalal ngoro te juróom-ñaari at la ko ngoro mu ne ko koo bëggoo mu wax ko rakk ji laa mu ko ba tey da jaar fi nga jaaroon rek mu ne la ngoro a rakk ci at boole leen ñoom ñaar ñëpp. ngorowaat mag ji. mag ji lañ ko njëkk a may. Ah. moom mu ne du mag ji la tàmm woon. Mm-hmm. moom rakk ji moo ko taxoon a jóg. Mm-hmm. nijaay te fekk na ngoro na mag ji juróom-ñaari at. nijaay ji ne ko nag ñun duñ njëkk a maye rakk mag mag la ñu njëkk a maye bu dee ba léegi yaa ngi bugg a ji da ngay defaat ngoroxaat ndaw si juróom-ñaari at mu ngoro ko yeneen juróom-ñaari at muy fukki at ak ñeent hmm? ñooña ñaar ñooñu ñooy jur doomi Yaquba yi yonent Yàlla Yusuf mi ngay dégg hmm. ci ñooñu la bayee ko kon li ma bëgg a leeral foofu moo di ne ci charia yu passé woon balaa charia Muhammad daganoon na ñaari jigéen ñu bokk ndey ak baay baa ñu bokk baay sëy waaye ci sharia Muhammad boobu daganut. Hmm, bokk benn jëkkër. bokk benn jëkkër te bokk ndey ak baay moom wala bokk baay wala bokk daganut. Hmm. yéen di sallallahu alayhi wa sallam dem na ba xaraamal jigéen di wujjee ak bàjjanam mbaa muy wujjee ak tàntam. dëgg la yéen di sallallahu alayhi wa sallam tere na ko boobu sax alquran tuddul ko waaye moom moo ko ci boole ci xaraama boole. ci hmm. ay jigéen. gannaaw loolu amee aji aydam aji ayda sey itam daganal nañ góor mu takk benn jabar ñaar ñett ba ci ñeneent mun ko paase ci li nga xam ne boroom xam-xam yi ahlu sunna moom lañ saxal ci jamono yonent ba tey saxaaba yi saxal ko te muy wéy ba tey mooy jigéen mooy góori jullit